mais fans yi sénégalais yi ñun dañoo bëggoon nekk champion du monde gannaaw ba ngeen ñu sagalee 2022 suñu 2022 la naka ngeen dundee déception bi jour boobu. waaw ah, kenn ñëw bi ñu Angleterre mënee ngeen xam ne da ngeen war a jël vol ñëw dakaar waaw nelaw ñu de am na ñoo xam presque majorité bi yëpp sama néeg la nekkoon sax. Mhm. ba 6 heures du matin parce que ñu amoon vol 9 heures. Mhm. nekk xam nga déçu dañuy sentir ne sax ñu mhm. toog di waxtaan ku nekk yi rek sa téléphone. après ngay jékki-jékki ku gis ko kii. mais déception la woon quoi mais mhm. déception yoo xamante la nii des fois c'est comme ça dañ mhm. koy sant yàlla daal mhm. waaw du ñu wax nu dul euh, xam nga masa coono aux populations sénégalaises ñi nga xamante ne yaakaaroon nañ si ñun te xam naa ne on a été reçus comme des héros aussi te ñoom loolu noonu contribué nañ ci bu baax. Mhm, nous ont beaucoup soutenu donc mhm. alhamdulilah daal. Mhm. ba tey dañuy gis ci ay post walla ay statut que jour entraînement bi ngeen waxee dajeeg waa Angleterre di ngeen amoon quelques réero ci seen biir. réero. comme parce que gis nañ ci ay publication ngeen yow ci sa bopp sax ngay am ñooy calmer ci ci ci ci moment entraînement bi. ah euh, taureau. Mhm. Euh, ñu ngi koy wax taureau benn dañu def cercle ñun ñëpp. Mhm. trois jours ñuy dugg ci biir passante bal bi affaire noonu pour empêcher ñi les trois yi nekk si milieu bi ñu bañ a jot bal bi. Euh, mais ay athlètes dañ loolu day am si fépp. Mhm. mais amul réero loolu du woon dara. peut-être jëlul bal bi kii jël na ko affaire yooyu noonu. parce que tey si biir terrain si biir plein match en plein match. dañuy gis ñaari athlètes yoo xamante ne nii si biir doo xam lu xew. parce que public baa ngi fa mhm. mun ngeen wax dawal fee mhm. marquel fii affaire yooyu noonu mhm. yooyu la woon ay marquel gauche droite c'est tout mais euh, non réeroo amul woon foofu da wax yàlla après malentendu la quoi peut-être aussi li journaliste wala kii tool de loin li muy divulguer amul quoi amul non mhm. parce que bi nit ñi partagé loolu sax ñu bëri ci commentaire da gis ñu ne équipe bi ñu am mosuñu ko am équipe bu booloo. nii doon benn. ci gis day mel ni dafa bokk ak keneen ki. seen vie famille boobu boo ko mën a expliquer. comme genre Pamatar Bamba. Mhm. xam nga mhm. samay morom lañ ma def chacun sama mag yow ma leen dara mais. samay morom lañ ma def néeg la ñuy ñëw léeg ñu ñëw jël sa équipement yóbbu ko. affaire yooyu noonu loolu noonu état d'esprit boo xamante ne tey. Euh, dañ c'est à saluer quoi. Mm-hmm. di si remercier suñu coach aussi. Mm-hmm. joué na si rôle bu am importance. Mm-hmm. parce que daf ñoo boole ñu ñëpp ñu nekk benn. dëgg voilà te ku expérience la àdduna. waxuma football kese. parce que père de famille aussi. donc xam na nu muy njabootee euh, ay joueurs te li ëpp importance mooy tey nooy njabootee sa nooy kii parce que yor group mhm. dafa metti mhm. nga yor groupe boo xamante ne vingt six joueurs lañ ay vingt six hommes aussi. ñoom mhm. dañuy bàyyi seen famille ku nekk indi sa ego ku nekk indi sa jikko ku nekk yor sa comportement. donc boo bëggee boole yooyu yëpp. ça ça demande du travail. donc de ce loolu nag di si joué. wala si yàgg insister. donc euh, am ay yu fa nekk ñoom Cheikhou ñoom Idi. dalal ñu aussi. ñun ñi nga xamante ne am nañ mi expérience si. club bi. Mhm. dañuy si groupe bi. Mhm. dañuy ñëw tamit euh, euh, dolli ko sunu rakk yi nga xamante ne rejoindre nañu ça fait mhm. plaisir. mais euh, ñëpp ne nañ yow yaa sonal Bamba Dieng ak Pape Matar Sarr leen a sonal trop ñëpp dañ koy wax say cousin nga leen def. <laughs> samay rakk lañ bu baax. sans façon quoi. nekk ay ay jàmbaar aussi ay guerrier. di leen ñaanal rek yàlla defal leen carrière bu. li ñu seen seen carrière yàlla motal leen ko quoi. ay espoir sénégalais lañ. ñu nekk ñu am yar aussi mhm. li ñu ma yeb yeb yëpp tamit man tamit xam nga sonal naa leen mhm. parce que mooy loolu mhm. mais noonu la quoi xam nga da nga leen di da ngay da ngay kii parce que ñoom tamit suba peut-être man sax man naa leen njëkk génn sélection mhm. xam parce que mun nañu am ay rakk yu ñëw tamit mhm. après ñu ni noonu c'est comme ça te mhm. ànd ay entre frères sénégalais c'est c'est comme ça entre frères sénégalais mais seen coach parfois ñu sànni ko xeer ñu naan ko Aliou Cissé sa classement bi baaxul bi pas classé nii xam nga sénégalais comme ni mu ko waxee ci discours am nee na bokk na ci pays boo xam ne bëgguñu défaite moom bëggul defet ni mu yóbbu ñu joué bëgguñu defet kon day def lu mu mën ci ay postam gis nañ ko ngay xam ni kii li muy def tamit bëgg na ko bëgg na victoire mhm. mais tout le temps dañuy nekk di wax classement bi baaxul di ko sànni xeer waaw euh, booy dekk ak doomu aadama si mhm. société des fois nga jàng ci nit mhm. man jàng naa suñu ko mental mantal a un bon mental nekk na koo xamante ne nii euh, du question de kii dafa dafa dëgër dafa costaud. Mhm. et c'est important dans la vie d'être costaud surtout boo jiitee réew. Mhm. donc euh, classement bi baaxul. Mhm. am na sax France. français yi des fois ñoom du ñu d'accord si loolu. Euh, anglais yi am na fa. football partout dans le monde. foo dem euh, am na ñu dul d'accord si ay choix. même moom ay choix am des fois sax mun na si bañ a d'accord moom mi koy def. mais c'est comme ça c'est le foot. il faut nga def ko. après nga jëlee si résultat. Mhm. tey def naa ne ay choix am boobu ba léegi ñu ngi baax. Mhm. ba mu nekkee fii ba léegi nii am na fu mu ñu jële yóbbu ñu fenn fii. effectivement du ñu def lu dul di ko ñaanal. Mhm. waaw mois en premier tey bu nekkoon dafa ma tegu ma. dugal choix bi gën. choix boobu def am am ndam. sénégalais laa damay kontaan si loolu. parce que loolu rek mooy doxal suñu réew quoi. tey même bu la yóbbul woon coupe d'Afrique. wala coupe du monde bu ñu ko amee da ngay bëgg. wala azim ànd ak équipe bi kontaan si am si kii. Euh, loolu moo jafe nag si si milieu bi ñu nekk. Mhm. aussi yomb si suñu groupe bi ñu nekkoon. Mhm. waaw am nay cas yu bëri yu mën a mën a citer yoo xamante ne ni tey nekk ñu si équipe bi mais ñu ngi dooleel équipe bi. Mhm. parce que loolu mooy tax tey suñu dëkk am ndam. tey bu France gagné coupe bi. duñ ko indi biir pale euh, fa lañ koy yóbbu France lañ koy yóbbu. donc tey sénégalais laa bu ma génnee bi ñu coupe d'Afrique bi xàmmewoo kii mooy joueur bi too kenn ñëpp nekk benn. Mhm. c'est le plus important pour man. Mhm. ndam li ñëw Sénégal kese mhm. loolu moo ñu ñoroon ñun. ñu gis ñaax yëpp président gis nañ ci taxawaayam dalal na leen biir palais gis nañ prime yi gis nañ dagg na bi dem ba Qatar fekk ji leen pour gën leen a encourager keroog bi ngeen gañewee Équateur nit yi dañ ko fekki ba palais mu daal di génn loolu yépp da ngeen koy gis naka ngeen gisee taxawaayam ci foot bi. waaw di ko son excellence monsieur le président ñu ngi koy ziar. di mhm. am contentement si taxawaayam. Mhm. depuis un certain moment ñu nekk si compétition yi chaque mhm. fois il est présent. waaw sur tous les plans mu ngi ñuy gunge mu ngi ñëw xam nga du ñu taxaw. du ñu jàppale. parce que c'est un amoureux du foot aussi. quoi qu'on puisse dire moom dina ñëw sax di ñu. di ñu dooleel. à chaque fois. donc day dund football. di ko remercier bu baax au nom de tous les Sénégalais. et puis euh, au nom mhm. parce que taxaw nañu quoi. Mhm. waaw. Mhm. Pape Cissé humour bu muy def euh, ci ci foot bi nee nañ moom mooy saraxu équipe bi mooy neexal équipe bi bu <laughs> gars yëpp toogee kóol moom mooy ñëw indi ambiance. lu tax muy géey si si waaw c'est moo tax nga bëgg ambiance. <laughs> non du ambiance de moo <laughs> xam lu tax muy géey rek. bëggoo liggéey da ngay wane ne doomu Pikine nga. non même day xool loolu sax ñu ngi koy wax doom pikin. Mhm. xam déjà loolu noonu fierté la. ñu <laughs> doom pikin bi affaire yooyu mhm. mais du question de ambiance sax. moo mhm. xam ne àdduna dafa dafa yàggul daal. waaw jëkkati micro dafa yàggul daal dañu bëgg bëgg doomu aadama yi xam ne du question la ñàkk concentration la fi yooyu noonu. mais ku nekk ak sa façon. maama nii laa mel quoi nii laa juddoo nii laa nii laa yoroo. te nii laa bëgg deewaalee. yàlla na yéex mais. sant daal sant mm-hmm. Mm-hmm. bugguma loo xamante ne nii damay fekk sax joueur boo xamante ne nii mu ngi si beneen mondam mm-hmm. parce que football dafa metti dëgg la yàlla nga entraîné deux heures de temps ñëw après nga dem sa téléphone am koo xamante ne saaga na la critiqué na la supporter bi kontaanul nga war a dab sa bànneexu famille sa jabar côté bee xam nga sa doom loolu yëpp boo ko buggee boole bëgg performance sur le terrain nga bëgg ko boole stress waaw sa waay dara du baax de. moo tax ngay indi ambiance carrière bu gàtt ngay am en tout cas parfois mu Sidi Diop parfois mu Waly parfois sax mu mu mu def Bastoun xaritam Bastoun moom fu mu toll da dalay woy. waaw koy bëggee sama doom nday waaw mais noonu la ko xam nga jarul du manque stress aussi. parce que tey gis nga bu ma duggee si terrain samay bëñ sax mu nga ko bañ a gis. loolu la nit ñi di wax. boo ko gisee muy day xumbal fii mais bu duggee si terrain day fas kanam bi. xam nga parce que liggéey euh, nekk ni bokkul. Mhm. mu duggee si terrain c'est autre chose. boobu mhm. am na am naa sama sama droit la foofu noonu. am na mhm. loo xamante ne nii daf ma war. sama obligation dama ko war a def quoi. mais bu dee dañoo génn en dehors. nit kese laa tamit. xam nga munuma frustré wala ma concentré wu si biir terrain bi. fii nii affaire yooyu noonu. tax nga nekk mbalax maanu équipe bi ah. non waaw am na ñu ne maay mbalax maanu équipe bi am na ñu ko wax mais am na ñu dàq mbalax si biti gisuñu leen. man la ma sëmb yow ak yow ak Gana imaam la Gana moo ñuy jiite ak Gana feccam bëri yëpp non moo ñuy jiite Sénégal yi ñu koy tooñ moo ñu jiite coupe d'Afrique bi ba coupe du monde bi yëpp fecckatu sabar la de fecckatu sabar buy jiite waate <laughs> gisoo lu ñu si def ay ndam kese la parce que zéro stress <laughs> mhm. macha allah mhm. mais noonu la ko euh, sa sa relation ak Bastoun parce que mhm. dañu seetlu ni ay soiréem ay woyam parce que woy na ba woy sa soxna Marie Louise daf leen di woy tout temps sa relation boo am ak moom waaw comme ni ko waxee rek Bas Pikine la defee léppam aussi fa la commencé. xam nga bi ñëw di ñu tëggal Aziko AS Pikine wala Sirat wala fii noonu ñun ñëpp dañ ko daan gis. waa di ko félicité di ko encouragé. talent la. tey maa ngi gis ne bokk na si ñu waroon représenter Sénégal pour euh, coupe du monde bi. donc di ko def lu dul di ko félicité di ko encouragé. képp koo xamante ne si sa domaine yaa ngi mën a yéegal drapeau Sénégal. haut niveau mhm. muy musique mu yéen seen Dakar ba mhm. muy télé yëpp mhm. duñ def lu dul euh, di leen ñaanal kase parce que Sénégal rek moo ñu ñor Sénégal lañ bëgg mu nekk mu am ndam on est des vrais patriotes Sénégal lañ kii ma demee fu munti dem si àdduna su ma su ma footballee pare moo amee dix jours trois jours quatre jours fii laay ñëwaat dëgg la parce que fii nga dëkk te ñun ñoo la moom sax nag suñu <laughs> suñu doom nga ñu gis ah. ci ci coupe du monde bi ñëpp ñu ne nit ñi seen soxna yi ñu Pape Abdou Cissé complicité bu mu am ak ak doo ak euh, soxnaam xaritam la moo tax ma Louise ñëwul Qatar wala yow yaa bëggul woon déplacement bi. non euh, xam moom daa kii day stressé match day seetaan final quoi moom final moo ko ñor. Hmm, d'accord moom final la bëgg. <laughs> moom gagné gagné gagné moom dafa bëgg gagné final kese. Hmm. <laughs> nee na moom football su sañoon final kese dañuy def direct. Hmm, waaw loolu doon xaar final bi mu ñëw en plus mu doon liggéeyaale aussi. final la doon xaar pour ñëw kon bi ngeen ñibbisee am na lu ko bett. waaw am na lu ko métti trop mm. feebar na ko journée. ndeysaan ma koy woo jotuma ko. xam ngeen ko moo ko mujjee jot sax. Mm. parce que du bëgg wax du bëgg wax euh, euh, mes encouragements moom mm. félicitation la bëgg di dégg. ndeysaan waaw ah, mm-hmm. macha allah. Mm-hmm. ñu gis complicité bu ngeen am yéen ñaar mu nekk sa xarit lool. waaw moom sama sama sama doom ndey la sama gaañ la. ndeysaan Marie ma koy bàyyi ak suñu borom rek yàlla mm-hmm. sàmmal ma ko. nekk yaay faal dëgg. waaw ñu bokk ay jikko yu bëri. amoon. mu nekk koo xamante ne nii moom tey su ma wax si moom du ma fi jógee jóge quoi. Mhm. dama koy gërëm bu baax a baax a baax. di ko mhm. gërëm bu baax di ko sant. Mhm. waaw. macha allah jikko moo la gën a lépp lépp wër na yàlla. Marie sans façon yaay fàll ko parce que tey bu ma bu ma meree sax. bëñam laay njëkk gis donc c'est le plus important. dëgg la waaw. mu nekk bëgg sama njaboot bëgg sama famille. bëgg samay xarit. xam nga ñëw ne la yendu invité yendu gars yi affaire yooyu noonu. ma kuy kuy xëcc ay mbooloo. ngeen nekk. Mhm. loolu nekkul lu ñu door a gërëm ko mhm. nit ku baax la yaay Fall maa ngi koy béggee bu baax. di mhm. kontaan ci moom di ko ñaanal jàmm saa su ne. mais dinañ ñëw ci benn affaire bu boo xamante ne dafa def buzz fan yi muy yow yaa ko def kataax. tétine bi nga jël daal di koy seex. nekk ci sa nekk ci nekk ci sa téléphone ana tétine bi. non muy fii en fait tétine bi. Euh, non naa duma ma si wax sax <laughs> mu ngi ci kaw sama table bi. Mhm. dama def opération samay bëñ. Mhm. yàggul dara quoi. Mhm. avant coupe du monde bi. léegi pour ma yëy day nekk problème quoi. d'accord léegi nag euh, dafa am. Euh, <laughs> eh, jot naa message yi sama yaay ne li nga sax lan la. <laughs> mais pour loolu la dama def opération samay bëñ. mu nekkoon loo xamante ne nii dama ko tàmm di def pour sama bëñ yi mun a yëy quoi. xam am Cissé Assane mu bëgg lekk. mu bëgg yëy ba ñuy normal. <laughs> mais loolu la quoi dégg naa si lu nekk nag mais gars yi dégg nga ci lu ne ñuy naan xanaa dafa bëggaat bébé wala dafa bëgg doom moo tax mu nekk di. def man rek bébé laa <laughs> man rek bébé laa man rek bébé laa <laughs> titim yor naa si trois. waaw titim léegi pour la pour kii bi la pour marché bu baax pour mm-hmm. bëñ bi di kii quoi mm-hmm. pour mën a fonctionner pour habitué wu la mm-hmm. day daas comme ni koy waxee day daas bëñ yi mais en plein <laughs> match nga ñëw def ko gars yi stressé woon mais buñ la gisee parfois tamit c'est important parce que bi la nit ñi gisee gis nañ commencé nañ tooñ ñu ngi fàtte sax tristesse bu match euh, bi billahi wallahi taala yëgu ne sax photo nañ ma en plus boobu defe naa maa ngi ñu ngi avant match la woon mooy bi ñuy de xool état de terrain état ma toog si banc de touche di déglu musique hmm. rek après si laa génn ma laam sama poche ma xam ne titin mu ngi foofu ma hmm. tijji ko après ma seq ko di ko yëy nii hmm. mun na nekk anti stress mun na nekk parce que nit kase laa comme ma ko waxee léegi nii euh, booy waaye préparer match tout ce qui est bien pour un pour un un jeune footballeur wala un joueur boo ko mënee def pour boo duggee si nga nekk si amee ah, jour boobu porté nañu chance après indiwaatuma titin bi. <laughs> moo tax après indiwaatoo ko. non porté nañu chance parce que ñoo gagné. Équateur waaw waaw mais da nga ko waxoon indiwaat. ci match match euh, Angleterre non day ñëw mu nekk man chaque instant. Mhm. nii nii maa ngi woon léegi ñun moom chaque match ñun ñoo la ko ñun ñoo la ko ñaan. day ñu indil titin <laughs> naa jox joueur yëpp titin. ñoom ñëpp ñu ñu yor ko. sa <laughs> sa relation ak sa waajur bu jigéen parce que ma ci moom day def parfois ay témoignages ñun sax waa Dakar Buzz bu ñu bëggee am accès ci yow wala dara moom lañuy woo. Mhm. parfois. Mhm. kooku moom euh, dañoo yàgg depuis ma juddu. ka <laughs> ni ñu koy waxee euh, bu may wax si moom lu ma fi jógee daal. Mhm. ñëpp nee nañ Papa Cissé xaritu yaayam. waaw sama sama morom la. bëggul sax di feeñ lu bëri. Mhm. léegi la commencé di feeñ nii. mu mhm. nekk yaay Fall dëgg dëgg dëgg dëgg. Mhm. gis nañ ko des fois ma jël ko jur ko euh, si internet bi. ànd ak moom fecc reetaan. sama taalibe cheikh bi. ñaan yàlla guddal fanam mu fekkee njëriñu njabootam bi yëpp. uufe na njaboote tey am na foo xamante ne nii yegsi si sama carrière moom moo ko desee joué lu bëri. sama ay musuma tàmmal ñaan musuma tàmmal. Euh, jànni nit mhm. samay diine la ma yaree mhm. ak liggéey ak mhm. jom waaw donc euh, dama koy remercier bu baax aw ma ay aw ma kiyam fayam yal na ko yàlla guddal fanam mu fekkee fi yeneen ndam waaw yan kàddu yoo xam ne sa waajur bu jigéen dina la ko wax tout le temps fooy dem dafay des ci sa bopp day ñëw ci yow tout le temps waaw jàppal julli nga dénk lépp sunu borom kase mhm. avant match ma woo ko saa may génn sama kër di dem stade mhm. ma woo ko ne ko maa ngi football yi mhm. yal na yàlla may ndam balaa mu may ñaan ñaanal ñi may dajeel ba pare yal ñi leen may wér ñooñu ba ngay mën a jongante si jàmm ñaanal ñi may àndal door may ñaanal donc euh, loolu daal tëj na lépp daal. Mhm. dañ koy bàyyi ak sunu borom daal. Mhm. Pape Bou Cissé yan souvenir wala yan euh, anecdote rek la mën a wax ci ci waajuram bu waaw yu bëri ñëw na fi récemment rek mu ngi woon euh, États-Unis mais ñëw na fi fan yi mhm. passé mu ngi waajal ñëwaat sax allah. mu nekk koo xamante ne buñ ma wooyee The mu nekk Baye Fall dëgg moom tamit. nekk guerrier mu ngi États-Unis di liggéey. assonage mu ngi daw pour famem boo ñëwee ne ko doo toog noppalu ko xam yàlla baax na mu ne non non <laughs> américain la. si xelam yàgg si kaaw bi aussi lépp lu muy daw pour njabootam la. Mhm. donc euh, dañ koy defal di ko ñaanal euh, mhm. wér moom tamit. Mhm. ba ba mu doyal arrêté liggéey mu ñëw toog. <laughs> gis nañ seede bi yëpp benn la ni nga mel ak say waajur ni nga mel ak say nitu démb noonu nga mel ak ñoom tey parce que ñun ñuy dem nañ Pikine say say xarit boo ko deful woon duñ ko wax mais dénk dañ leen suñu ay micro du direct du dara. ñu wax ne na nga meloon rek moom nga mel ci ñoom ba léegi la nga daan def ci ñoom. lu ko raw nga continuer def ci ñoom social bi et tout avec tes amis. waaw xam nga ku ñeme dañ laa dee. Mhm. tey comme ni ma ko waxee ñoom grand Fadel. Mhm. xam di ko nuyu bu baax. Mhm. parce que tey am na ñoo xamante ne ni tey ñoom nit ñu yaree kese. ñun noonu la ñu mën a fonctionner. waaw nit ñu yaree kese lañ mën a fonctionner tey mënuñoo mel neneen. parce que bu ñu melee neneen ñoo soppeeku. ñoom ñoo ma ñoo ma ko ji. waaw. kër gu ne laa daan dugg mu mhm. fubalee pare ñëw sonal ñëpp mhm. xamal lekk fépp waaw awma sens interdit mhm. démb Pikine laa nekk ba guddi gi dem foofu noonu xam nga gisante naa fa Fadel encore toog lekk xaal mango tout xam dugg kër yëpp nuyoo affaire noonu parce que loolu mooy sama force àdduna mu solo bu ñu xalaatee ne ñu ñëpp dañuy dem te kenn kañ la yàlla na yéex jarul diisal dara donc loo am am am am am booy dem sept mètres percale moo la fi moo lay yóbbu mhm. donc ak ay ñaan mhm. donc na lépp di rafet mhm. chaque instant looy wax tamit mu rafet xam parce que suba am na daal waaw Pikine moom sama sama lépp la son fief la falaa defee sama lépp fa laa jàngee fa laa nekkee waaw mooy loolu doomu Pikine ga moo tax macha allah ni nga mel nekk anti-stress su équipe bi <laughs> seen relation ak El Hadj parce que ànd na léegi la mooy woote noonu ci kaan bi ànd ak ci ci coupe du monde bi gis nañ moo xam la leen def moom tamit day nekk ak yéen tout le temps. El Hadj source de motivation la quoi. Mhm. waaw am na benn jour ñu jugee euh, avant coupe d'Afrique ñu koy gagné. Mhm. ñu jugee euh, vol bu gudd la woon euh, Afrique du Sud. Mhm. lañ jugee woon contre kii la woon éliminatoire coupe du monde yi la woon. contre Namibie bi. nami Namibie waaw ñuy ñibbi si dix heures de vol El Hadj wax na ak ñun sept heures de temps <laughs> nelawuñu ñu ne ko El ñoo bëgg nelaw mais lépp lum ñu wax mm-hmm. daf ñoo jariñ mm-hmm. parce que buy wax nekkul ne day wax parce que dafa bëgg wax rek kese mm-hmm. quoi mais lépp lu ñu wax dafa am solo lu muy wax lépp da la koy da koy tegal si yoon parce que am na vécu am na expérience mu nekk Baye Fall moom lu mu fu mu yegg tamit nekk Baye Fallam xolam bu yaatu moo ko indil mhm. xam nga te genre nit ñooñu dañoo baax si àdduna dañoo baax si carrière footballeur dañoo baax aussi si ay équipe nationale mhm. donc dinañu won yoon bi affaire yooyu noonu keroog bi ñu Angleterre gagné dafa am lu ko metti mhm. parce que ñun rek ñu toogee gis nañ ne joueur anglais yi dañoo ñëwoon di ko jébbalu di ko nuyu donc c' est une chose boo xamante ne tey comme ni ma la koy waxee sànq et là Sénégal moo ko ñor donc euh, bëgg na yóbbu Sénégal fu sori chaque mhm. instant. Mhm. su sañoon bi muy nekk en pleine activité nekk athlète. boobu lay kuyee. dégg nañ ko si ay werante may xuloom biir FIFA. Mhm. Sénégal lay teg de l'avant. dëgg la voilà. gars yi parfois ñu ne dafay dafay sonal xale yi moo tax mu topp leen mais gis nañ ni am na benn importance ci yéen parce que bëgg ngeen tout le temps léegi di ko gis. non du dara nag. ni mu koy wax nii maa koy wax doo dara. <laughs> sëb maan la <laughs> mais. waaw nit ku baax. Mm. loolu naa dafa am importance su ñun. Mm. ñun dañuy am euh, dañuy sentir joie de vivre. Mm-hmm. day ñëw di parier ak jour bi naan ko boo defee quinze jongle affaire yooyu noonu. Mm-hmm. ay Pape Gueye Elimane Ndiaye. Mm-hmm. xam nga nga gis gars yi di ko dàq ji di def euh, ay tir oreille. ay kii la yoo xamante ne nii tey day tax groupe bi di vivre. xam nga yooyu yëpp moom moo ko fay kii moom mhm. boo tayalee sax boo gisee laaju da sawar mhm. parce que bëgg nga jouer parier ak moom benn affaire gagner mhm. deux deux fois ballon d'or ngeen def benn jeu nga gagner ko c'est une chose euh, dañuy daana lekk ñëw ci ci ci Elimane Ndiaye parce que gis nañ ne coupe du monde bi il a fait le foo tourné da gis dem nañ jël famille am nit yi ñuy wax ci moom bu duggee da ngay gis sénégalais yi ni ñuy kontaanee donte ci yéen ñëpp la ñu kontaan mais sénégalais moo bëgg lu bees ñu naan Iliman Ndiaye saajo Mané la ñuy gis ci moom am na ñu naan sax naan Sadio bu changé couleur xamee nañu la. <laughs> waaw comme ni ko waxee rek sénégalais la xolam yaatu. Mhm. sénégalais moo baax. Mhm. ku ñëw da lay dalal. dëgg la te Iliman fii la bokk. Mhm. donc tey bu. bu ko sénégalais yi yéenewee mhm. c' est tout à fait normal mhm. waaw moom tamit mu am pas-pas am envie mhm. am bëgg-bëgg bi fa même gunge ko si aussi ba tey xam affaire yi nekk euh, cohésion boo xamante ne au final day aboutir à une bonne chose bon c' est que euh, compétition bi soriwuñu si bu bëri mais nekk jeune bu am talent xam bëgg Sénégal aussi donc euh, du ñu def lu dul di ko xaaraat si yeneen compétition yi di ñëw mhm. incha allah mhm. li ko sénégalais di xaare yàlla bu ñu xaddi mhm. yàlla nañ ko gis si moom yàlla nekk euh, ay double Sadio Mané triple Sadio Mané voilà 2026 incha allah yox la jëli ko da ngeen ñu koy defalaat waaw parce que ñëpp ñu naan est-ce que Pape Cissé dina bokk ci sélection 2026 loolu yaa ngi koy xalaat waaw lu tax ñëpp ñan la yow boo ko si ñëpp. non parce que parce que man moom man man je suis te dama leen bëgg dama dama am yaakaar ci yéen et je suis fière de vous ci coupe coupe du monde bi. yàlla may wér ak mhm. fekkee. Mhm. incha allah loolu moo ëpp mhm. parce que looy dox te amoo wér amoo wér gu yaram ah doo mun a doo mun a fekkee. loolu noonu. waaw wala nga tal ko boog la ñuy wax sax. mais incha allahu rabbi déjà avant deux Mhm. am na sunu chan euh, CAN bi di ñëwaat. Mhm. Côte d'Ivoire. Mhm. donc ñu ngi koy aussi. dañuy nekkaat champion d' Afrique. ngeen demaat ñu nekkaat champion champion du monde. pourquoi pas voilà yow wax nga non amul pourquoi pas wax nga kii bi trajet bi. nii laa ko nii laa ko gisee. nii nga nii nga ko gisee. waaw <laughs> yéen kàddu ngay tàggatoowee ak looy ñaax jeunesse su Sénégal. parce que jamono ji xawoon nañ découragé et tout mais gis nañ instant bi le waaw alhamdulilah euh, jeune laa comme ñëpp aussi. di leen encourager di masaw coono ñëpp nag Sénégal parce que xam naa ne on vit des moments yoo xamante ne c'est pas facile mhm. ak ku munti nekk ak euh, région boo munti nekk ñu ngi lay masaw coono di leen euh, jaajëfal mhm. di kontaan ci yéen aussi ci seen taxawaay mhm. parce que am na benn instant ñuy seetaan benn match coupe du monde bi ma gis euh, corniche ba kii bi fan zone bi fan zone mais nga gis ñu concentré aussi télé bi ak bu ñu amee occasion wala affaire noonu nga xam ne kooku tey mënoon na dem daw yi soxlaam aussi. Mhm. mais no dafa ne xaaral mu gunge équipe bi. Mhm. di ñaanal Sénégal jàmm kese. Mhm. parce que Sénégal bu amee jàmm rek da ngay gis léppay leer. léppay ibbeeku. parce que jàmm la ko donc euh, yàlla na fi yàlla saxal jàmm yàlla nañu fi yàlla defal ay ndam yu neex a neex neex. képp ku ne si looy yëngu yàlla na la si yàlla taxaw. am na lépp mënul sotti waaye. xëcc bu dagul dikk. mais mayo yi mayo yi doo ñu ci wax tuuti parce que mayo yi sénégalais yi au début waxoon nañ ne neexu leen. est-ce que FIFA juumul mayo yi c'est pas du tout lu nice et tout yéen mayo yi noo leen gisee nice na. non moom comme ni ma koy waxee ay athlètes lañ. Mhm. ay professionnels lañ. ñun tant ñu gis ne am nañu këru fédération sénégalaise de football fii nii. Mhm. mu nekk Lyon. Mhm. ñu war defendre défendre vert jaune rouge. loolu rek sa nous suffit <laughs> voilà te léegi am nañ étoile. donc moom mooy kii bi. et on aura des autres étoiles après incha allah. yu bari lañ koy rangé ba ñuy dem di ko test yi. tas ko ci moyen bi ñu bàyyi la nga tàggatoo remercier nit yi projet yi waa en en de foot. Mhm. en dehors de foot gis nañ Sadio Mané ñu ngi si yi muy def ñu ngi si bu baax a baax ñu ngi si bu baax mhm. euh, déjà man ak euh, sama soxna ñu ngi si mhm. am benn daara bu ñuy nekk di ibi bientôt incha allah yaa nañ si yàlla yóbbu ak jàmm moom si la nekk sax di dox moo tax euh, kiiwuñu waaw parce ñaa yëpp daara lañ mhm. donc euh, ñu ngi nekk si ay projet école daara mhm. yoo xamante ne ni tey bëgg nañ euh, képp koo xamante ne ni yaa ngi si yaa ngi si euh, manqué nga foo nekk foo dëkk affaire yooyu noonu mhm. incha allahu rabbi nañ def tout ba récupérer si loolu noonu waaw ñu ngi si te bientôt di ngeen gis kii bi incha allah waaw mais am na yeneen projet yu bari yëpp a ngi fii biir Pikine lépp ñu ngi suñu xel mu ngi si yu bëri te yàlla ñu yàlla mottalil daal yàlla may ñu wérte te tal ak fekk incha allah mm. rabbi. Mm. waaw waaw waaw maa ngi koy suivre la dernière fois sama jabar si boobu moom ma ko wan sax xam nga nekk loo xamante ne lu rafet la aussi. Mm-hmm, mm-hmm. Euh, di la si di leen si encouragé quoi. Mm-hmm. Euh, xam naa ni defoo par pour euh, pour ngistal. da ngay def parce que da ngay def te yàlla tax. Euh, des fois sax damay wax du ñu def te yàlla tax mooy dangay def te nit ki tax parce que jàppale nit ki nga xamante ne moom nga yóbbul te suñu borom dinay maye waaye dina koy jaarale si ay doomu aadama dëgg mu munu ñëw rek jox ñëpp loxoog loxo mhm. des fois dina ko jaarale si fadal mu jox ma ko ma jox ko keneen affaire mhm. yooyu noonu mhm. donc di leen si encouragé bu baax parce que loolu initiative bu rafet la nan yàlla taxaw yëkkati Dakar Buzz ba ca kaw kaw xam nga ngeen mën di def euh, jël ay conteneur euh, partout jàppale doomu aadama yi daal waa incha allah léegi rek mu commencé. ibbi ñu projet daara yi euh, dinañ ko waa Dakar Buzz ñu koy inauguré. ñu ci waaw bu baax sax mm-hmm. incha allah rabbi mm-hmm. bu kiiwee rek nañ ko. muy nii la kaay <laughs> sa seex parce que c'est vrai. ci mariage bi ñëpp dañ ko doon jaawale ak yow. kon dañoo juum de gis nga kii. lu ñuy jaawale si man kii. sama yaay xam nga lu day jëjee na ma mais yow. xam nga léegi nga ma jox léegi. <laughs> ñaan est-ce que doo bàyyi ma nët. Giraaw dañ bàyyi waa internet Dakar Buzz ñu wax ñu. <laughs> yow waa internet dinañ jugé kan moo daal sama doom day la mhm. ñoo bokk lal. Mhm. xam nga yeewandoo 6 heures matin dem entraîner ji affaire yooyu noonu. Mhm. football comme ni ma la ko waxee rek attaquant entré mais suñu borom des fois moo tuddee noonu affaire yi daal. xam nga sama frère la bokk lal 10 ans. xam waaw. defandoo lépp. Mhm. mooy wax si moom du ma fi jugee mu nga mënuñoo wax lépp daal. dëgg la waaw mu nekk gaynde mhm. boo bu doxee sa dégg sama tur day taxaw. waaw ah, jéem a lijjanti lan la gars yi wax foofu. Mhm. noonu donc dama koy bàyyi suñu borom tamit yàlla guddal fanam moom sama gaynde la quoi sama frère la. booy Ndiaye. ameen tourne Dakar Buzz TV lii lañ leen indiloon tey ñoo am mbégte jàkkaarloo kenn ci suñu ay lion def nañ lu bari def nañ lu am solo ci réew mi parce que 2022 bi tax na ñun ñu am joie de vivre tax nañu xam lan mooy nekk champion d'Afrique tax na itam ñu dund coupe du monde ñu leen di jaajëfal di leen wax ni nous sommes fiers de kontaan nañ lool ci ñoom di leen delloo njukkal di leen wax jaajëfatee suñu lion yi merci à vous merci au peuple sénégalais. jërëjëf. waaw c' est c' vrai si disponibilité bi. parce que nga gis nit démb tey nga kaleeg moom émission c' est pas évident. waaw Fadel sama grand la. moom dama koy bàyyi suñu borom moom tamit nit ku baax la quoi. xam nga moom il est positif. Mhm. ba pare day dégager énergie boo xamante ne tey ji nii. waaw yéen ñi liggéeyandoo moom sax xam naa war ngeen koo yëg mhm. donc euh, bu waxee tey mënuñu ko bañal dara te mhm. autant que autant plus que ñu ngi fii nii mhm. donc dañuy def lu dul di sant di ko sant quoi grand bi amal jàmm yàlla yokku la yëkkati la ba ca kaw si li ngay yóotu si télé bi yaa ko xam yàlla na ko yàlla defal moom nitu àjjana la dañuy <laughs> bàyyi suñu borom fayal fayal fayal ñu ko mais ballon d'or yeeg coupe yeeg ñëw incha allah <laughs> oui ba dañ bàyyi noonu waaye moom yeneen ñu ngi géré. <laughs> merci beaucoup ñu leen di jox dig daje ba beneen yoon incha allah ak beneen lion rek wala beneen célébrité merci beaucoup à la prochaine.